Oh, my naa ba koor gi commencé ba léegi julliwoo li nga a jàppee koor gi yomb na de. docteur man nekkuma ci kër gi di def comme ni ko ñenn ñi di defee ci kër gi di julli di wane ni maa ngi jullee ak yooyu noonu man publicité wu ma sama julli waaw man bu waxtu bi jotee maa ngi sama biir néeg sama jabar ji mun na ma seede. mooy julli samay waxtu. mosoo julli waaye nag fii nag di publicité ñi ñuy julli pour nit ñi di la gisal man yooyu doxuma ci yooyu. mosoo julli. li maman di wax ni nga naan da ngay bind livre maman nee na mosoo bind livre. da ngaa bëgg nekk sa kii boo ko toppee doo jaamu yàlla de. ay ma wax maman maman lu mu wax suba ba ngoon du dëgg. baax na man kër gi fii kenn rek laay gis mu fiy julli dañuy waxante dëgg rek. muy pël bu rafet sa aawo. tey sax man dama ko gis. ci suba nee na dem seeti yaayam. salaamaaleykum. waaleykum salaam. hey my boy. naka wu. yaa ngi ci nga naaj. wala guddi. naka mu. naaj. yaa ngi ci jàmm. ça va yaa ngi ci waaw ah. naka affaire yi ba am na. waaw affaire yi mujj naa am. waaw ah. ah, mujj naa am mais dama kaa wóor ba sonn dara. lay wax ni. bilaay bu doon keneen moom du ma ko liggéey. mais nan doog ba pare nan doog ba pare heure bi jot na. kon de kon de tey sonn na. nan doog ba pare defaral. moo génn moom. chéri seede leen kii bi. nga wut jox sama gan bi kaw tànk bi man bu dee lekk moo la jaral léegi. loolu bu baax lañ. naa tey sonn nga trop. sonn naa trop. jox ko jox ko jox ko. Eh. Eh. bu mu jàll laa la bu mu dugg laa la wax ah. jàll bu mu ko def buy jàll ngay faat ñu ko mu jàll eh, indi li waaye. yow naa naa la jàpp eh bàyyi sa bopp. waaye ba mama mama rek la wax dinaa duma de fekk sama gan toog a koy dóor toog toog laal ko rek ramam gi mel mo tay sa kam eh kay eh, toog ita bu feebar dugal ki rey na kenn rek yow moom nit ñi ñu toog rek ngay

yaay kan kii a ak moom waa yow. xam nga daal mu bëgg nga nekk nii lan lan mooy seen problème lu xew. yow moom waxuma ak yow ndax yow 15000F ngay fay day neex ñu génne la si biti. su ma doon fay 1000F sax su ma gisee lu dul dëgg war naa cee wax. ma ma laaj ko. sama mag dóore wul muy dóore. looy dóore. yow lan moo lay dóore du ma la may naa dayal. sama xarit nag boo ko dóoree ma dóore nii nii soo ma jegee nii. waa léegi maman lan moo xew la. kii daf maa fekk ma toog jaamu yàlla mhm. di xalaat weeru koor bi ñu ma war a defal lu baax mhm. yàlla say ma ci yiw mhm. ndax yàlla takk na rab yeeg yëpp jinne kenn jommalaatul fi mu ne nii ku dox yaa jommal sa boom mu ñëw moom mi dox bëccëgu ndar kaama bëgg maa jommal ci weeru koor bi te duma ko nangu yàlla takk na lépp wàcce malaaka yërmaande wax yi dara jubu ci wax bu yanu maanaa boo ko déggee danga koy xam yow moom bëggooma booy lan mooy seen problème kii mi ma romb ya am soxla do ñew boo soxla ne da ngay ñëw. man de ku baax dafa am benn dil bu set bi bu ma bëgg ñun ñaa nga ko. Mhm. dafa am waaju baax li ñu naan fallu war a yos. Mhm. léegi nag ma bëggoon ñu def ndogu bi. Mhm. suukaru ko ñu dimbali suñ bop edd legi nak dañuy naan suñ démé association dañuy wax lañu am wa legi nak bu ñu joxee luñ ci luñ fa mënta jox ñun ñaar ñokay koy mais man sama dil bëgguma sax muy trace comprendre nga buñu ñu buñu cent 100000 dama bëgg ñu sédok ci digg bi comment mais man bëgguma tay ñu jox la li nga naan li lañu ñu jox ak yooyu man sama dil bëgguma muy sen bu nekkon 200 sax ku nekk 100 la ok amul ben problème et bu ma gisé la xamné cool grand yaa ngi rek ñu dem ci suñu rek dégg lu yi ngay def dëkk bi ñu ñëw la Mm-hmm. ndax ñun dafa am benn aide bu ñuy def mooy koor dañuy joxe ay tàndarma ay café Touba ay mburu ay meew yooyu noonu ci ci mbee si bedd yi ak si koñ yi ak si kaw tali bi waaw oto buy romb ñu jox la ren nag suñu door a demeewul noonu ñu ne xaaral ñu ñëw ci yow macha allah dégg nañ sa tur si koñ bi ak àdduna wërngal këpp ne da def lu baax moo tax tey ma ànd ak sama frère bi ma ne tey nañu ñëw seet la pour daal. nga yokkal ñu ñu mën a def liñ doon def daaw. waaw jërëjëf comme euh, présidente bi ni mu ko waxee rek ndax man maay président groupe bi euh, ñu formé benn association bu mag euh, association bi nag weeru koor moo ko tax jóg képp koo xam ne tey woor nga ba ngoon di leen defar lépp loo xam ne aajowu na ci koor rek dinañ ko def tey ñu woor ba ngoon ñëw ndogu si moo tax tey ñuy dugg ci kër yi képp koo xam ne tey mën nañoo jàppale ci association bi ndax association bi dafa rëy. te yaakaar naa tamit weeru koor képp ku ci def lu baax suñu borom lay fay ndax boo ci defee benn ñu fay la fukk kon yaakaar naa même boo ñu tëfalu sax war nga cee xool suñu borom defal ñu rek te yàlla rek tax ndax association moom rëy na te ku ñu jàppale daal lañ bëgg moo tax weeru koor jotee nii ñu dugg ci kër yi di sàkku ndimbal ndimbal nag moom ku koy sàkku moom wax dëgg fa yàlla da ngay dem fi nga ko yaakaaree moo tax tey ñu bàyyi lépp ñu ni woon nan la seet si pour loolu ci mën a dimbalee rek nga dimbali ci te yàlla tax jore jom ma ngi rafetlu bu baax a baax a baax seen kàddu yi ngeen di wax ak déplacement bi ngeen def tamit ñëw loolu dama leen ciy sant bu baax a baax parce que romb ngeen ay kër kër waaye comme ni ñu ko waxee rek def lu baax moom fépp ci moment yi la baax mais rawatina weeru ko. man nag loolu yàgg naa ci ndax fàllu fàllu fàllu Warriers Couture moom yàgg na ci social nag man duma ci hésité dinaa jàppale leen comme ni ngeen ko bëggee incha allah léegi rek da ngeen kan may xaar kan, ma dugg ci biir am na ma def ak yéen incha allah. xamoon naa la bu fi ñëwoon doo ñu na baax na loolu wër na àddina de. bu la amoon bu la amoon fukki mbéy mi. Ah, dëkk bi day yokk de. ba weeru koor duñ am sax luñ dagg. mel ne buñ amee dagg tàndal. Mhm. as mburu. ah duñu kontaan. boo ci tegee ah, affaire bi naa la. Euh, bari na bariwul. waaye maa ko ci hmm. ah, def mu hmm. doon sama participation ci bés bi ci li ngeen di def nii ci activité bi ngeen def nii. ah lii de yàgg nga koo def. du ma ne ku leet de de moom sa baaxi maam la. sa cosaan la tamit de ndax sëñ Fall bu la duppee mu juróom-ñaari sëñ Fall boo ko ci lu gaaw da lay wuyu kon yow ñu lu ko yow tamit gaaw nga ni courant nga sa loxo rek ma ñaanal waaye man ñaanal na rek daay di nga bëgg sa àdduna yàlla na ko yàlla defaral yàlla na yàlla fay yiw loo bëgg sa xol yàlla na ko yàlla defaral ci juróom-ñaari sëñ Fall ci weeru koor gi ko def naa lu may def ndànk daajul nga dama laa fekk nga taxaw weeru yoroo dara man ne la xaaral

dem na sama loxo bi ay waay lii mooy bay baa bu dundee. maman yow fan nga mës yore association ci koñ bi. di nga toog fii nga naan da kii bi waa chef de waxoon na ma bëggu woon yow moom kii moo la yóbbaale suñu bëkkandoo bi nga xam ne 15000 lay fay dund bi yëpp yaa koy jox moo tax mu fuy engagé waaye man bàyyi naa leen